manda mi waaw ndaje mi li ko waral rek mooy le cinq bi ñu jëm euh, yoon la bés yu mag yu toll ni comme sénégalais yëpp dañu bëgg a ñëw ci jàmm ak salaam ñëw fekkee bés bi ci jàmm te yow yaakaar naa yaa ko waxoon yaa ne woon képp kuy ñëw na nga sa or képp kuy ñëw sa na nga sa jama ba nga xamante di nga seetaan ci jàmm dellu ci jàmm mais gis Lamine Euh, dal na suma xel ndax déjà boo xoolee face à face bi ñu defoon cosaan rek dispositif bi sa police euh, génne woon man daf ma impressionné dispositif bi boobu kase doyoon na pour làmb ji te ñoom nee nañu dinañu indi lu raw loolu donc lii ma gis sama xel dal na aw ma benn xel ñaar di xamal nag sénégalais yi ne bii yi ñu ngi leen di génne jouru combat bi jouru combat bi huit heures la ñuy commencé jaay billets yi ñu ngi leen di jaaye ñu ngi jaayee billets yi ci EDK yi mooy EDK yi ne dakaar ci la ñuy jaay billets yi ak euh, arène nationale. arène képp ku la jaay billet nan ko laajaale bracelet ndax billets yi day ànd ak bracelet billets yi tamit kenn mënu ko photocopier. kenn mënu ko falsifier kenn mënu ko falsifier ci benn fan mënul nekk. ndax Sénégal moom segam xaalis la ñuy defar billet tëwu leen moo tax ñu koy génne jour bi huit donc loolu benn la ñaareel ba à partir de huit heures samedi arène nationale kenn amatu ci accès. waaw ñun ñooy organisateurs yi ñoo fay am accès waxtaan nañ ci ak sécurité bi euh, dinañ ko formaliser ba nga xamante ne kenn du mun a ñëw foofu incha allah wa rabbi kon dispositif yi daal li ñu jàpp mooy samedi stade bi kenn amatu fi accès loolu mooy benn mais ci cadre accréditation yi surtout la presse nan la Luc nicolas Enco nar a liggéeyee ak waa presse bi ak ñan lay liggéeyal ci presse bi c'est important. c'est extrêmement important mais bala may eggali foofu nga wax damay eggali juste ci affaire bunt yi. c'est important porte yi porte yi c'est important 8 heures la ñuy commencer jaay billets yi 9 heures. Ça a beau jinder ce billet 8 h vous l'avez fait, mon Ok. 8 h du soir, dimanche. Dimanche, 8 h Le, 5 novembre à, à 8 h vous jinder ce billet, mon gars, direct. Mon gars, directement. Lol, Wartan Nanti avec sécurité, mais il y Pour la première fois, les portes du stade seront ouvertes à 8 h Inch'Allah, le jour J. Mais veille, nous avons dit que nous avons dit ci le stade bi comme niñ ko tam amé bu len le bo ñu xamné lolu mën ta nek ndax dañuy tëj stade bi liggéey suñu liggéey incha allahu rabi. concernant accréditation yi ak la presse. accréditation yi moom dama ko wax fii mu leer mënoo toog sa ruq defoo dara liggéeyoo dara toog ba jour ba taxaw naan ma sama accréditation loolu moom kenn xalaatu ña war ñi ni muy demee mooy ña ko war a yor dinañ leen ko jox te ay gilet la ñuy yor ak leneen yoo xamante ne identifiant lañu. képp ku ko yorul bu lay bobul jege stade bi ndax doo fa dugg. kon képp ko xamanteni ni ñu woowuñu la jox la sa accréditation ak sa gilet mu yewon nga tok sa kër seetaan. lama koy déparé ci télévision partenaire yi may liggéeyal muy TFM ak ITV TFM ci sen bop képp ku yorul accréditation bokkoo ci événement bi war fa liggéey bo ñëwee do dugg. d'abord ci say partenaire ci samay partenaire bop parce que nak lamb ji duñ ko fowé mënuñoo liggéey ay at ci benn làmb événement bu toll nii ñu di ci jublu bàyyi ba jour ba ay caaxaan yu ndaw di ko yàq loolu moom leer na te nag dama koy waxaat fii mu leer police mii ma gis sécurité bii ma gis yàlla xam na ne caaxaanuñu na yaa ko waxoon ku mu neex na takk or ku mu neex na takk jamaa man maa ko wax man te ci télé laa ko waxee. mais problème bi mooy loolu yëpp dégg nañ ko. mais problème bi moy cadre sécurité bi nga xamanteni mom nga wax ne samedi yéen am accès si stade bi kenn du passe kenn du pousse loolu doyna war waar de. à partir de samedi 8 heures du matin nit dootul dugg ci stade bi ku bokul ci organisation bi. ak koo mën a doon fi dugg. mais dama dégg légui ci réunion bi yow nga né ñu laaj la mbeur temps nga né man Serigne Fallou Nicolaï man mi organiser suma amul badge wala gilet génnee leen ma ci biti. loolu laa ko waxee dama ne man nii organiser laa wax bu ma teguwul ci charte yi bu ma kenn bàyyi ma dugg bu ma kenn bàyyi ma dugg loolu kay dafa leer. sàkkatuma géew ba moom dina leer leer boo xamante ne képp ku dagg biyam dina mun a seetaan dina mun a gis touche mbër bi dina egsi ba ci kawam loolu moom fii ci télévision lañ ko waxee te di ngeen ko gis. yéen ñii aussi tiim seen pay per view diaspora dalal leen seen xel di ngeen seetaan combat bu neex. Tel leen jënd paas yi ndax direct yi 18h30 lay commencé ci télévision yi li ci dess yëpp seen affiche point com nga ko mun amé ba 18h30 loolu aussi lu jar a parce que nak événement bi dañ ci and ak télévision yu mag TFM mooy partenaire leader bi moom moo gérer événement bi ñu ànd ci encore ak ITV kon boog ay professionnel la ñu àndal du bàyyi dara lu ñu distraire duñu ñu bàyyi benn faay duñu bàyyi tarafatal ay yàgg nañu organiser làmb làmb bu ne taxawal nañ ko mais bii da cay raw ndax la ci nit ñi doon wax ñëpp ba ñu koy liggéey di ci liggéey ànd ak yéen ñëpp nag ba egsi fii ñu egsi du ñu nangu dara dara dara lu ko yàq.